bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmain mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 di ci ànd ak ñun ñoo ngi lay nuyu bu baax di jéggulu nag ci bépp rëcc-rëcc boo xam ne am na ci waaye di sant suñu borom subxanahu wa taala ci wépp yiw woo xam ne am na ci di ko ñaan mu nangu ko te barkeelal ñu ko ñoo ngi leen di bége bu baax ñiñ daan nuyu ci ndoorteel jotaay bi ñëpp ñoo ngi leen di joxaat suñu nuyoo tey bég ci ànd giñ ci ànd ak ñun di ko wétli ko def ko mu nekk seeni bind bindi nafar def ko mu nekk bindi fàttaliku yoo xam ne dañ koy fàttalikonte ak yi nga xam ne moo aju ci fànn googu yépp yàlla nañ ci bokk jariñu ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax di wéyal jotaay yi nga xam ne moom lañ dooroon ak yéen di ko waxtaane te mooy nekkoon ci li war a dox diggante jaam bi ak boroomam te mooy wàllu ibaada yi rek jaamu yàlla yi waaye nag amoon ci benn bu am solo boo xam ne mooy bi ñuy wax laab ñu waroon koo waxtaane dooroon ko nag ci yi koy jiitu yépp moo xam ndox ma koy def la ak xeet yi nga xam ne moo ci aju ak yennat ci yoo xamante ne waras na ko caa xàmmi yooyu yépp ñëwoon nañ ci junjoon ko ànd ceeg yéen ay waxtaan ñëwoon nag ba war a dugg ci li nga xam ne mooy am njàpp ci boppam ak yi nga xam ne moo ci aju foofu lañ tegoon suñ baaraam war faa doore tey jii bind bi ñaan suñu borom subhaanahu wa mu may ñu àggale ko ak jàmm di ndokkeel bu baax waa daara almisbaax yépp ñi ca daara ja di jàng ak waa daara almisbaax yi ànd ak ñun ci jotaay bi ak soppey almisbaax yépp ci jotaayu almisbaax bi mu doon amal samedi ji di conférence bi ñu leen doon woo di leen jaajëfal ci seen wuy si ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu nangul leen jéego yi waaye itam lañ fa waxtaanee ci aw yiw lépp suñ borom nangul ñu ko te def ko ci téere jëf yi jaajëfal bu baax oustaz Alioune Sall ma doon taxawee waxtaan wi ñaan suñu borom dëgëral ko te yokk koo sàmm ba mu fekkee ndam yi nga xam ne moom la daara yi di am yépp ndax ak yëngoom akuk dalam yépp ngir daara am ndam rek la yal na ko yàlla defal euh, maam ki ne ci am nuyoo baa ngi noonu borom mos baax kon nag nga seddale ko soppe yëpp ak am di jàmm yëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ndokkeel itam ñi nga xam ne ñi ngi waajal jamono ji màggalu poroxaan te du jëmmi màggal gi ci boppam waaye nag njàngat mi nga xam ne moo ci nekk la ndax jigéen joo xam ne fanweereet ak ñett la dund ci kaw suuf waaye nag suñ borom xéewale ko ñi man di ko fàttali ko di ko tudd ba jamono ji ñu nekk di ko tudd ba ca jamono ci suñ kanam loolu day wane ni yitte am na te waxoon naa ci jotaay yii ne doomu aadama fu mu bëgg a àgg rek war na faa mën a àgg mi ngi aju rek ci yitte ji nga xam ne moom lay am mi ngi aju rek ci ji nga xam ne moom lay am bu ko defee nag jàngat ko léeg mu nekk loo xam ne farata la waxoon naa ko nga si daaw ci ñun réew mi cat li nga xam ne moo ñu dugg ci wàllu bëgg ak roy ak xàmmee kiñ ñu war a bëgg ak ki nga xam ne moom lañ war a roy ak itam buñ ko bëggee ba noppi ndax bëgg gi rek day doy wala ndax bëgg gi day ànd ak roy waaye itam nekk ca la neexoon kilifa ya loolu am na solo lool waaye itam def loo xam ne seen ginnaaw buñ siggi woon yem ci yow nga di ko def ñu bëgg ci toog fa te duñ fa jóg loolu it mën nay bàyyante xel ndax léeg-léeg nit wax ne maa ngi sant seen jiw wooteel ko ak cant wala mu wooteel ko màggal wala sax mu wooteel ko gàmm waaye daal kuy xool tey settantal da ngay gis ne bu doon moom ba muy dund la ñëw toog ca tànt ba ndax la fay xew noonu loolaa fay xew ci kanamam walla déet amaana bu doon maga teew loolee xew moom du xew ndax seenu dund daanut xewee noonu seenu njàngale it loolu nekku ci loolu yaatu la soxna jaara moomu ñuy waajal ab bisam ngir fàttaliku ko xam nga ne Mariyaama la tudd waaye la tax ñu naan ko jaara te te jublu ci jaaratullah mooy koo xam ne dafa dëkkaale ak boroomam te loolu du aw tur dong waaye yëg-yëg la boo xam ne moom la nit di dund ba tax mu tudd jaaratullaahi maanaam ki dëkkaale ak suñ boroom di ko wétlikoo ci lépp di ko di ko di ko di ko dund ci fànn yépp di ko yëg ci fànn yépp ndax fanweeri ak ñett mooy 33 ans moom la dund waaye doon ku teela xàmmee nga xam ne li ñuy wax yëfi ndaw da ngay wax ne kon mosu caa jaar waaye itam doon wétli ko alxuraanul karim mokkal ko bëgg ko waaye yooyu yëpp taxul mu jaay dara ja kilifaam di ab sëriñam waaye summeeku ci kanamam nag topp ko topp goo xamante ne kawe na ni nga xamante ne moom la nit di toppe ku ñu yilif noonu lay toppee ko ko yilif topp gu wér goo xam ne mbir mbirum wujje mi mën a tardeel nit fexe na ba mucc ci mbirum parparloo mi mën a tardeel rawatina jigéen juy sëy fexe na ba mucc ci mbirum kiñaan mi mën a tardeel jigéen juy sëy fexe na ba mucc ci loola nag wërsëgale ko xéewal gu rëy gi mu am ñu di ko fàttali ko ba nëga ni te olof ci aw làkkam day wax ne liggéeyum ndey añu doom moo tax maam Moussa Ka ba mu koy woy ne ko nag euh, fayee nañ la kon liggéey ba moo tax kon ñu fayee ko njaboot gu tedd gu baax gi nga xam ne moom la ko suñu borom baaxee yàlla nañu yàlla may xel ak xalaat boo xam ne danañuy def tadabbur ci jëmm yi ci jëmm yu baax yi di def tadabbur ci seeni jëf te bañ a jombale jëf ja suñ bopp bu ko defee bañ jombale pay ga suñ bopp dana tax buñ yuqamti koo rek àgg ca loola bu subaak jàmm buñ ñëwaatee ci laytaaye ko jotaay bi lenn ci yiñ ci war a jànge ci dundam gi danañ gën a xóot ci loolu mu nekk ay bind yoo xam ne ay bindi fàttali rek la yal yàlla defal ñu tawféex ba ñu mucc ci di ko tooñ bu boobaa duñ jël mukk ab salon tudde ko ko ndax lool nekkul woon yëfam koo xam ne dafa wax ne day sàmm ndono yi mag ñooñu bu rombon tey ji ab salon buñ bind salon soxna jaara waroon na koo jaral fàq aw yatam damay wax ne loolu jar na takk xare jar na takk xare ndax lool dañ ndax koo xam ne yëmul woon ci boppam bañ a feeñ waaye sëru rabal sax la daan làmbaayoo kooka moom xam naa ne tudde ko loolu tooñ ko la bu buñ demee ba ca yoor yoor ba ca bisu màggal ga ñu jàpp ne màggal ko mooy teg musiciens yu koy woy ñu naan ko soxna jaara soxna jaara di woy di woy di woy jàpp ne loolu mooy màggal gi loola ak tooñ la goo xam ne ku ko woote war nga caa joxe ay orientation ne leen buñ ko wootee ba di ko màggal nii lañ ko war a fàttalikoo nii lañ ko war a fàttalikoo nii lañ ko war a fàttalikoo loolu day bokk ci li nga xam ne mooy tax mu gën a am ay jeexital ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a fàttalikoo te yooyu lu am solo la danañ ci gën a ñëw incha allah gën koo yaatal ñaan bu baax a baax suñ borom jàppandil ñu am yéene dem fa yépp te itam ñu dem fa demuk jàngat waaye dem fa demuk sellal demin wi dem fa itam demu góor góorlu te buñ ñibbisee kenn ku ne yëg ne am nga programme bu ne sa kanam ndax la mu doon jëf boppam lu ko jëfal te suñ borom fay na ko ko ci àdduna bañ tekki suñ bët ñuy rafet njortu ca pay ga mu ko dencal ëllëg yowmal xiyaam te loolaay ëpp li ci àdduna fuuf ndax walal aaxiratu xayrun laka minal uula bi ñu noppee ci tomb boobu nga xamante ne ab muxaddima rek la waxoon naa ne ak nañ ci war a waxtaane li nga xam ne mooy njàpp njàpp buñ koy wax ñiy wax alwudu moom njàpp moom laab la goo xam ne laabu ndox la laab goo xam ne laabu ndox la moom wudu mu am ay cër yoo xam ne moom lañ ko jagleel ci yaram wi ndox mi waral a laal cër yooyu ci yaram wi bu ñu xoolee lu mel ne kanam lu mel ne ay loxo lu mel ne tànk lu mel ne bopp ak yu demee noonu ñi di ko tuddee laab gu ndaw laab gu ndaw léeg-léeg tudde ko ko wala ñu di ko tuddee laab ci sobe yu ndaw yi moom njàpp moomu am loo xam ne moom la ñuy wax ay suruutam maanaam ay yoon yoo xam ne fa la ko nit di jaarale ngir njàpp ma mën a wér mu am itam lu ñuy wax ay farataam am lu ñuy wax ay sunna am lu ñu am loo xam ne dañ ko caa sopp ak loo xam ne dañ ko caa sib ak yoo xam ne da koy yàq ak ay yeneeni àtte yoo xam ne am na ci biir njàpp moom lañu fas yéenee indi waxtaan ci ak yéen bala ñoo ñëw ci yooyu ma indi dinaa waxtaani njàpp dalil yi nga xam ne wala tegtal yi nga xam ne moom la ko alxuraan indil sun sunna indil ko ko boroom xam-xam yi indil ko ko ba tax ñu xam ne kon lu sax la ci diine ji waxtaane lenn ci ay farataam ak yi nga xam ne moo ci aju ba ba bunt boobu di waxtaane ci wàllu àtte njàpp di jeex incha allah kon bu ñuy xool mbir mu ñu jëfandikoo ci diine buñ la laajee dañ koy delloo ci njàngalem suñ borom subhaanahu wa taala déglu yonent bi lu mu ci wax boroom xam-xam yi ne lañ dégg mbir moom buñ demee ci njàpp dañuy gis ne kon lu sax la ci alxuraan sax ci sunna sax ci boroom xam-xam yi mu nekk kon ab sart ci julli wér nekk itam ab sart ci wër kaaba ga wér koo xam ne day sikki sàkka ci ne njàpp moom lu wér la wala lu wérut maanaam bokk na ci diine ji wala bokkut ci diine ji boroom xam-xam yi dañuy wax ne kooku kéefër na ñu ne lu tax ñu ne suñ borom subxanahu moo wax ci alxuraan ci genn aaya farataal ci la nga xam ne mooy njàpp ak ya nga xam ne moo ci aju wax ne yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayni suñ boroom ne yéen ñi nga xam ne dangeen a wax ne gëm ngeen ma bi ma yónnee yonent bi mu woote ne ana ñi gëm yéen a yëkkati seen loxo ne ñoo ngi nii mu indil leen julli ngeen gëm ne dangeen ko def bu waxtu wi jotatee ba ngeen jóg bëgg a julli ji dem leen jàppi waaye yàlla ci waxinam dafa wax ya ñuy raxas ñu tudde loola jàpp ñun mu ne bu boobaa dem leen ngeen raxas seen xar kanam yi olof di ko wax sëlmu ngeen raxas seen loxo yi ba ci seen coñco yi ngeen masaa seen bopp yi te raxas seen tànk yi boroom xam-xam yi génnee ci yooyu faratay njàpp ak yi nga xam ne moo ci aju yépp daanaka ci aaya jooju lañ koy toje danañ ci ñëw kon alxuraan farataal na ko farata gu wér ci aaya jii ma la jàngal léegi ki yàlla yónni woon ci ñun sallallahu alayhi wa sallam wax ne suñu borom subxanahu wa du nangu julli kenn ci yéen lu ne ba muy julli dafa yorum njàpp koo xam ne am njàppam dafa toj ak julleem du wér mukk lu ne dafa jàpp la yaqbalu llah salaata ahadukum ida ahdasa xatta yatawaddax mu mel ne wax yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci luy wane ne njàpp lu am la buñ ko doon lim mën naa wax ne duñ fi jóge boroom xam-xami jullit yépp daje ci ne ak julli du wér lu dul ne jaam bi julli dafa amum njàpp bu mënta jàpp day tiim ba ba ba maanaam ya nga xam ne moo ca topp waaye kii war a mën a jàpp mën a jàpp am lum jàppe am fu mu jàppe ngànt taxawut ak julleem du wér lu dul ne daa jàpp ñi wax tam ne wër kaaba ga du wér lu dul ne kii wër kaaba gi dafa ànd ak njàpp boroom xam-xam yi ne wuute nag yooyu moom dañ cee dëppoo ci julli ak wër kaaba gi yi nga xam ne ci lañu wuute nag mooy ci laal kaamil wuute nañ ci ndax nit mën naa ñàkk yorum njàpp ba noppi laal alxuraan am ñu wax ne dagan na am ñu wax ne daganut danaa ñëw ci wuute yooyu incha allah amitam itam wuute gu ñu indi ci sujjootub sant yàlla ñenn ñi ne ki koy def dafa war a ànd ak njàpp ñenn ñi ne ki koy def mën naa bañ a ànd akum njàpp waaye li wér daal te amul genn wuute mooy njàpp sart la ci julli nit ki wér loolu dinañ ci ñëw teqale ko insha allahu taala bala ñoo ñëw ci loolu ñu waxtaane tuuti ci ngëneeli njàpp njàpp kon am na ay ngëneel yu rëy ngëneel mooy loo xam ne ab soññee lay doon bu ko nit ki déggee yëg ne liñ koy def loo am na luñ ko ca dikk lu rëy a lu ko cay xaar loo xamante ne bu ca jotee bëgg njàpp am na ci yu baree baree bari ba ca jiitu dañuy wax ne alwudu yu kaffiru sunub jàpp day tax ñu jéggal nit ki ay bakkaaram kon ku bari ay bàkkaar njàpp daa bokk ci li tax nit ki ñu jéggal ko ay bakkaaram ku ko man kon bu sam njàpp tojee rek jàppaatal bàkkaar sobe la soo xam ne day tax ëllëg yomal xiyam nit ki aw yaramam yomba tàkk ba noppi da koy jox ak xet gu xeeñ goo xamante ne nii xet googu mooy tax du mën a jaxasoo ëllëg yowmal am ak ñu tedd ñu baax ña ña muy mën a jaxasoo rek mooy ña xaw a mel ne moom njàpp nag day ñëw ngir raxasal nit ki bàkkaaram yooyu da koy dindil ay ñaaw téefam ki nga xam ne daa manee def lu ñaaw di ko wax wala mu di ko jëf te def lu ñaaw def bàkkaar def yooyu doon loo xam ne day neex bàkkan waaye day tilimal ab xol te day diisal ay cër njàpp bu ñëwee daf koy fomp netwaayal ko nit ki ba mu set kon ngëneelul njàpp lool rek jaroon nañu sax ci bokk na ci ay ngëneeli njàpp ba noppi njàpp day tax nit ki ay tiyaabaam ñu koy fulal maanaam dañ koy yokkal ay tiyaabaam yool bi muy am bu jàppee yool boobu day yokk njàpp mi ba mu gën a kawe noonu it lay yëkkatee ay darajaam daraja mooy wàccuwaay yoo xam ne moom lay am njàpp day tax nit ki ñu yëkkatil ko ay darajaam yemut ci loolu waaye njàpp ngànnaayul jullit la ki gëm yàlla njàpp ngànnaayam la ngànnaay mooy jaasi ji muy xeexe wala fetal gi muy xeexe wala fett gi mu yor muy arme bi nga xam ne moom la yor di ko xeexe ñu ne njàpp arme la boo xamante ne arme ku gëm yàlla la yemut ci yiw woowu moom njàpp waaye day puusal nit ki jax-jaxali bakkan yi nga xam ne moom la ko bàkkan di tegal ci ay bànneex di ko puus ci naka sudut noonu ki saxoo am njàpp day mucc ci loolu insha allah njàpp yemut ci loolu waaye day dàqal nit ki li ñuy wax wasaawisu saytaan maanaam jax-jaxal yi nga xam ne moom la seytaane def ci nit di ko déng-déngloo di ko duteloo ba du am yaqiin du du amuk dal ci boppam njàpp day ñëw ngir dindil ko jax-jaxal yooyu yemut ci yiw woowu muy defal nit ci nga ne njàpp waaye njàpp day tax ki nga xam ne mooy jullit bi mu am yëg-yëg ci ak ngëmam waaw ngëm ngëm yàlla am cafka gi muy saf njàpp da koy netwaayal xolam ba tax caf googu gu mën caa dugg ba noppi itam day tax bakkan nit ki féex ki nga xam ne dafa xat di een mer xat njàpp day tax nit ki noppalu ci yooyu bu ko defee bakkanam féex naka noonu itam day yaatal ab dënn waaw day tax ab dënnam du xat dënn bu xat mu mer te xamul lu ko tax a mer di eh, jóg ka dal njàpp day ñëw ngir yaatalal ko dënnam boobu noonu la koy indile nag ak set ci yaramam te loolu mooy li ñuy gis ci saayir njàpp mi ñëw setal ko ci yaramam ba mu set wecc naka noonu njàpp day fay am mer koo xam ne dafa mer <laughs> ba tàng jër bu demee jàpp incha allah merma ma day daal di sedd guy kon moom itam ci ngëneeli njàpp yi la bokk yëmut ci loolu waaye njàpp day leeral kanamu aji gëm ji fii ci àdduna ak ca àllaaxira yi ma lim yi muy bari bari li ma limut ci ay ngëneeli njàpp moo ko ëpp foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ci ay ahadis yu bari yoo xamante ne day tegtale ne njàpp daal lu bari ay ngëneel la danaa ci indi yennat ci xaddis yooyu bokk na ci xaddis boo xam ne Abdullahi mm, sun baaj yi moo ko nettali radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jaam bi buy jàpp bu gallaxndikoo ñaaw téef yi nekkoon ci gimiñam yépp day génn maanaam bi mu sexee ndox mi yëngal ko yàbbi ko bàkkaar yi nga xam ne moom la gimiñam defoon yépp suñ borom jéggal na ko te gimiñ mooy jëw gimiñ mooy saaga gimiñ mooy xaste mooy wax lu yoonam nekkut yooyu yëpp bàkkaar la yoo xamante ni gimiñ mooy fi muy jaar mu yóbbaale làmmiñ ya nekk ci biir yëpp bari na lool lu muy yàq ci àdduna bi njàpp day tax ñu jéggal nit ki bàkkaar yooyu nga xam ne moo ci nekk nga xam ne tey ki nga xam ne jàpp na ne giminam cafkaam dafa soppeeku ba mu jël ab patama boros raxas ko ba mu set def cee tax gimiñ gi xet ga neex mu ne waaw koy noonu la war a góorgóorloo nag ba bàkkaar boobu nga xam ne moom la gimiñ di def tam koy jox xet gu gën a garaaw xet gi ko ñam di jox te muy xasaw xunn ci malaaka yi ak mbaax mbaax yi nga xam ne moo ko jege mu góor góorlu ba di ko tuub di ko sellal di ko raxase gimiñam loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne jàpp benn xaaj la ci yooyu bokk na ci ay ngëneelam kon bu nit ki gàllaxndikoo jaam bi ñu jéggal ko ñaaw téef yi nekkoon ci gémmiñam yépp day ànd ak ndox ma génn alayhi salaatu wasalaam nee na bu saraxndikoo saraxndiku mooy istinsaar maanaam jël ndox mi dugal ko ci biir bakkan yi ba noppi génnee ko muy fiiru ñaar yooyu ñooy ànd bu boobaa xarajat xataaya min anfusihi min anfihi bàkkaar yi nga xam ne moo nekkoon ci bakkanam ci xet yu bon yaak naka su dul noonu ya ñollu maak yooyu yëpp day daal di ànd ak moom génn nga xam ne cëri njàpp yëpp la topp ci xadis bi ba mu jeexee noonu bu fekkee sëlmu na ya nekkoon ca xar kanam nga yëpp génn la bu bët ya xooloo nag ya ci aju yëpp day ànd ak ndox ma daal di génn bu raxasee ay loxoom noonu bu masaa ay tànkam noonu bu masaa ay noppam noonu bu raxasee ay tànkam noonu ba ca cati baaraam yaag ya nga xam ne moo ca ajoon yëpp day daal dañ mu set wecc mu noppi ci loolu nag dox ay jéego jëm ca jumaa ja ngir julli ji yiw wa tàmbulee gën a yokk suñ borom subhaanahu wa taala di ko yokk di ko yokkal mu mel ni bàkkaar yi nga xam ne moom lañ jublu fii ci wax ni bu sëlmoo mu dañ ca kanam ga bu raxasee nopp ya mu dañ ca bu saraxndikoo mu dañ ca muy xataaya boroom xam-xam yi dañuy wax ne liñ ci jublu mooy bàkkaar yu ndaw yi liñ jublu ci xataayaa yi fii wal muraadu bil xataaya huna assunub athaqair amal kabair fala tukaffiruha illa tawba ñu ne bàkkaar yu ndaw yooyu bàkkaar yooyu liñ ci jublu mooy bàkkaar yu ndaw yi waaye bàkkaar yu mag yi moom lii tax ñu jéggal ko nit ki tuub rek ay tax ñu jéggal ko nit ki tuub day tuubal suñu borom tuub ga matale sarti tuub yépp suñ boroom nangul ko ko ñu jéggal ko ko insha allah anas ibnu malik radiallahu anhu nettali na xadis bu mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy indi ba tey ci ngëneelu njàpp wax ca aw yiwu rëy wu yaatu ndax nee na ki nga xam ne dafa jàpp dem di julli ji ñu baal ko bàkkaaram yépp léegi nag moo xam julli farata la moo xam julli naafila la moo xam njàpp ma njàppum farataa taxoon moo xam njàpp ma njàppum naafilaa taxoon imaam abi hurayra radiallahu anhu indi ñu beneen xadis boo xam ne muslim ak yi ak ñeneen ñu dul ñoom nettali nañ ko ci seen téere wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ndax duma leen tegtal loo xam ne day tax ñu raxasal leen seeni ñaawteef yépp ba noppi yëkkatil leen seeni darajaat nee na ñu ne ko ah kay yaa rasulallah yooyu lan la mu ne leen ngeen di matal am njàpp isbaaxul wudu alal makaarim te loolu isbaax gi li muy tekki rek mooy itmaam mooy matal njàpp mi ci cër yi matal njàpp mi ci cër yi nee na bu ñu koy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bari lu ñuy jàpp bokk na ci lim ñuy indil ñu faral ñu suñuy ñaawteef yëkkatil ñu suñuy darajaat ñi ne ko ak ban yaa rasulallah mu ne ak bari lu ngeen di dox jëm ca jàkk ya nañuy dox di julli ji waaw jullit day nangoo dem ci jàkk ja mhm. dëkk ci koñ bi rek kenn dajee yow ci jàkk ji musiba la jullit day dem jàkka ministre rek député ak ak ñëpp a ci yem damaa wax sax ministre ak député ne ñoom lañ ci waroon a soññi waaye ab moom ci jàkk ja la ku ko yaakaar ku ne wala nga doon ko xaar ca jàkk ja nga ko waroon a xaar waaye nag du ku koy nëbbutu ca jàkk ja ngay dem toog ndax du fa ñëw mel ne ëppale na boppam jullee ci mbooloo mi wala moom sax denc na loo xam ne jëratut muy def yenn jaamu yàlla yi bu defee ñu ah ñun nañ julli yéen de xamuñu lu ngeen toogaale lu ngeen mën di toogaale bu julli jotee jóg julli jee gën loola kon baril ay jéego jëm ci jàkk ja nee itam ak di xaar julli ginnaaw bi julli jàllee alayhi salaatu wasalaam nee na loolu moom xare la xale la loolu jihaad la fi sabilillah moo tax mu ne fa zaalikum ribaat fa zaalikum ribaat kon njàpp bari na lool aw yiw loolu yenn la ci yiw yi nga xamante ne njàpp am na ko di xadis yi nga xam ne moom lañ indi euh, abi hurayra radiallahu anhu indi beneen xadis boo xam ne nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw ci armeel ya wax ne asalaamu aleykum daal qawmil muminin wa inna insha allahu bikum laaxiquun wadat na law anna xad raayna ixwaanuna loolu la mu ci jublu kon ci xadis ba ba muy jeex ndax bañ ko waxee awalas naa ixwaanu ko yaa rasulallah dafa wax saxaaba yéen leen yéen samay saxaaba ngeen yonent bi daa ñëw ca armeel ya ba mu nuyoo ba noppi mu ne aka neexoon ngeen gis suñ mbokk ya ëllëg la am wala nañu mel ñu ne ko ndax ñun bokkuñ ci mu ne déedéet yéen samay saxaaba ngeen ñu ne ko ñan la kon mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw sama ginnaaw daal di cay teg yem ca teg ba xadis boobu jàll xadis bu gudd la bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yal nañu may ñu dund ba suba te weesu ko daañu ñëw àggale xadis boobu ñëw ci sart yi nga xam ne mooy tax am njàpp wér ak yi nga xam ne moo ci aju jaajëfal nañ leen bu baax a baax ñaanal leen di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm bég ci soppee Al baax yépp nag ñoo ngi leen di bége delluwaat di leen bége delluwaat di leen bége di bëggee Oustaz Alioune Sall mii di egsi di ko bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar wi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmmuñu ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna te defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.